تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi lay ziar bu baax Mbacke man mi jiite fu toll ni Expresso Sénégal ànd ak samay euh, collègue euh, jëm ci wàllu technique bi jëm ci wàllu informatique bi commercial communication mbégte bu rëy lañu am tey ñëw fii ci université Cheikh Khadim bi nga dalal ñu ñu sant ci suñu borom lool di am tamit mbégte ñëw eggali si euh, yéene gi ñu amoon bu ñu ñëwee fii avril ba gis euh, sëñ Mountakha Bassirou waxoon ko suñu yéene bi ñu amoon ci Touba euh, ñun Expresso Sénégal mu nangul ñu ko yàlla def boobu ba léegi équipe yi taxaw ci tamit ñu équipe technique Expresso yi ñu équipe technique yi nekk féetewoo fii Touba équipe yi nekk ci université bi Grande Mosquée bi ak résidence Cheikhou Khadim bi ñu am yéene boobu couvrir lieux yooyu ñu xam ne lieux yu am solo fii ci Touba ñu am yéene nag couvrir leen ñoom ñëpp ak internet yu jéggi dayoo boo xam ne dana dox dana ànd ak qualité te du soxla benn fay ndax suñu contribution la fii ci Touba ndax tuubaa ñor nañu lool ci fànn yu bëri ñu nekk ay taalibe te mu nekk dëgg ci ñun ñu nekk tamit doomi réew mi wara bokk ci lépp loo xam ne dina mën a jëmal kanam réew mi donc tey mbégte la ñu am jéemuñu ci internet rek xam nañ ni kuy liggéey da ngay soxla collaborer da ngay soxla waxante seen biir ñu ne ah ñun kat opérateur téléphoné lañ nañ leen jox ay numéro yoo xam ne dañ mën a wootante seen biir te duñu fay dara loolu nag dañ ko def amul benn aspect commercial jubluwuñ ci lenn tey siiwal gi ñu ciy siiwal sax xëy na daf ñu cee dab mais yàlla xam na ni yéene bi biñ ko amee ba ñëw waxtaane ko dañu waxoon dañuy ñëw rek def suñu addiya euh, tuddee ko addiya expresso luñ ci am jël mais yéene rek lañ ci doon demee donc sant yàlla bu baax bu ñu toogee tey ñëw fii ci mois du bi fekk lépp yem ñu mën a ñëw toog ak fierté wax ko sénégalais yëpp ñu dégg ko donc du ñu yem fii tàmbali rek la incha allah yi suñu yéenee nekk na lu gën a kawe lii te ñu ngi ñaan suñu borom mu eggali ko ngeen fekkee lépp incha allah waa maa ngi sant équipe yi ci liggéey moom laa doon wax équipe technique yi di sant également ñi ñu jàppale ci yéene bi muy sëñ Modou Karam sëñ Assane Diouf nga xam ni wax dëgg yàlla dogu nañ ci tamit taxawuñu ci yeneen fànn sax yu jëmul si projet bi jàpp nañ ñu ndey ay ne ay taalibe daal mais comme dañu bëgg a liggéeyal sëñ Touba ñoom it nañ ñu wan ne ñoom it sëñ rek a leen ñor donc sant nañ bu baax Mbàkke euh, kàddu yi loolu la di leen sant di leen gërëm ñun ñoo amee ñun ñoo leen war a sant ndax ñiy liggéey ci yi ak waxi internet bëri na tey ñun bu ñu amee jagle gii dañ leen war a sant ñu ngi leen sant bu baax a baax te xam leen ni tamit nañ ci taxaw lenn lenn lenn loo xam ne dinañ ci wala mën a naqari ji ci jublu wala lenn loo xam ne ah lii de ñii lañ lii la waxoon waaye defuñu ko te soob na yàlla liggéey bi dina continuer maintenance bi dina fi ne ak lépp loo nañ ci soxla tamit dinañ ci tax bu dee soxla aasbillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu soxna Fatou ñu ngi lay nuyu lu bari yow ak mbooloo mi nga àndal wa nuraxib bi ixwaanina sudaaniyiin wa naqul lakum marhaban ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi watanikum Sénégal wa fi madinatikum Touba di sant bu baax a baax ci turu ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba yenn ji mu yenn liggéeyal sëriñ yëpp man ko def toon ànd ko ak moom di teg nag nuyoo boobu ak sant gi ci loxob sëriñ Modou Kara ak sëriñ Assane mi ngeen àndal ñëw fii ci barab bi di sant ci taxawaay bi di leen xamal ne itam jëf ji ngeen xam ne yéen a ngi def ci dëkk bi ju am solo la ju nu yittewoo la waaye ju am njariñ la yëg nañ ko sëriñ bi yëg na ko njaboot bi yëg na ko fi ngeen tàmbalee ca jumaa ju mag ja xam ne mooy dajuwaayu murid yëpp xam ne moom mooy xolub dëkk bi mooy ëpp solo ci barab ju ëpp solo ci murid yi jaar daaree kaamil waaye ñëw nag fii ci mu jàmmax Cheikh Ahmadul Xadim muy université bi nga xam ne université lañuy wax waaye mooy euh, barabu programme wala système wala modèle éducatif bu Cheikhul Xadim radiallahu anhu bu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye barkeelu waxi Cheikh Abdoulahi Lahad joojee bu waxoon tuddee ko université moo xam moo tax ñuy weneen tur woowu yi waaye njàng mu yaatu la moo xam ne mépp njàng mu am njariñ rek dañ ko fi jàng mu doon loo xam ne day jëmmal wax gi sëriñ bi waxoon ne sunu borom defal na ko daara joo xam ne day doon jubluwaayu képp ku bëgg a xam waaye bépp xam-xam bu am njëriñ xam-xam wu ñu fi amee it nag ñu yaatalaat ko ba bindeef yëpp mën cee jot di barab boo xam ne kon lu fi waay def rek ñëpp nga ko defal ndax ñëpp ko bokk ndax mooy mooy néegu mën nañoo xam ne ndax Tuubaa gépp daara la sëriñ bi sëñ Tuubaa dafa ñaanoon mu doon daara wa jaalu daban maskana taallumi wa mawdaa al fikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi loolu kon daara la dëkk bi yëpp daaral la te buñ ne Touba it mooy fépp fu dëkku njabootu Serigne Touba nekk di dugg ci biir Touba waaye fii ngeen toog na tey day day néeg bi moom day néegub daara ji mooy université bi Serigne bi waxoon nit ne suñu borom defal na ko ko bil Mustafa li banal quddusu madrasatan jaha yasulul ada wal jahal wal kabadu kon bu ngeen ci dugalee seen loxo ci anam gi ndax fii ne xam nañ ne jokkaloo mënta ñàkk rawatina nag ci ci ci fii nga xam ne njàng mi ñu fiy jàng ñëpp dañ ko bokk dañoo bëgg ëllëg a ak si biir nit mën a toog fu mu mën a nekk ci biir Sénégal wala ci biti man di jànge fii waaye ñi nga xam ne nag ay boromi xam-xam lañ di ñëbbatuk sëriñ bi nekk fu nekk ci àddina bi ñoom itam man di jàngale fii waaye ñi fi nekk itam man di jokkoo na mu gën a jàppandee na mu gën a yaatoo looloon na ngeen dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax ba ci puce yi téléphone yi nga xam ne mujj ngeen nu ko yónnee sëriñ maam Thierno indi na ko ba seddalee nañ ko kenn ko nekk ci ñun yor na ko di ci jokkoo internet bi itam ñu ngi koy jëfandikoo kon daal ñu ngi leen di sant ci taxawaay bi di ñaan sunu borom mu tax ngeen di def mu fay leen ngeen jëfee ci barkeb Cheikh Ahmadou Khadim radiyallahu anhu cant gee ngërëm li sax Cheikh Mouhamadoul Mountakha ko moo ko war a def moo ko moom moo koy def nun nag kon ci fii rek ci turu université bi ci turu mu jaaw complexe bi ci lañ leen di xamal ne jëf ji yegsi na fi ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di ñaan suñu borom gën leen a kàttanal gën leen a dëgëral gën leen a yokk ba fépp fu ngeen bëgg a àggale seen kër gi rek ngeen yëgale ko ci barke bis bu tedd bi ñu jëm ci weeru tedd ni weeru tedd bi ñu nekk muy chahru safar safarul xayra wal baraka di bis boo xam ne ci la cheikhul alxadim radiallahu anhu génnoon dem liggéey borom moom ci tukki bu sell bu màgg boobu bii nga xam ne moo ñu indil séritie bi kon képp ku ci dugal sa loxo rek na la wóor ne denc bu dul yàqu la wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajidu inda allah wa xayran wa adama ajra kon lépp lu waaye def ci kii bi sëriñ bi nga ko defal